gan Abdoulaye Noba salaamaaleykum. maaleykum salaam euh, Babacar. ñu ngi lay gërëm ci teewaay bi yow directeur protection civile ca ministère intérieur mbënn mi la ñuy waxtaanee ak euh, li ñu dogaloon keroog ba taw yu euh, metti waddee ci réew mi ñu ko plan Orsec am na ñuy jàmbat ne gisaguñ dara mën nga ñu deful xayma ci fukki fan gannaaw ba ñu déclenché plan Orsec bi lan ak lan ngeen defagum ci génne nit ñi ci ndox mi. maa ngi lay gërëm euh, Babacar plan Orsec euh, ñu ngi ko déclenché bu nga ko waxee am na fukki fan depuis boobu euh, service yi ñu ngi sur le terrain principalement brigade nationale des des sapeurs pompiers nga xam ne ñu ngi sur le terrain depuis lors pour ŋànc ndox mi génne ko yóbbu ko pour aar askan bi wala boobu mission principalu brigade nationale des des sapeurs pompiers bu nga xam ne eh, depuis ay at dañu nekk ci ci mission boobu ci beneen wàll parce que baax na ñu fàttali tuuti plan national ORSEC nu mu tëddee plan national eh, ORSEC dañ koy activé boo xam ne service yi moyens yu ñu yore am nañu ay jafe-jafe pour faire face benn situation de catastrophe loolu moo tax euh, bu président de la république bu mu amee ay information ci situation taw bi ci les cinq et quatre et cinq euh, septembre mu demandé donc euh, ministre de l'intérieur bu nga xam ne moom mooy activer plan national Orsec mu activer ko donc euh, depuis lors comme nu mu ko waxee ci njëlbeen service yi ñu ngi sur le terrain mais lu ñu war a fàttali mooy que activité service yooyu service de l'État yi dañoo bare c'est vrai que ñu ngi ciy gis sapeur pompier yi mais également dinañ ci gis yeneen service de l'État yi surtout au niveau territorial Sénégal nuñ ko xamee am na fukki région ak ñeent te lépp lu ñuy def diñ koy coordonné te ku koy coordonné au niveau déconcentré mooy chef de circonscription administrative yi bokk na ci li gën a am solo ci wàll liggéey bi ngacc ndox mi ci wàllu woow fu ngeen ci toll ban xayma ngeen def tey jii fukki fan gannaaw bi mu tàmbalee ci lu jëm ci ngacc ndox mi pratiquement lu ci am na jéego yu bare yuñ ci def parce que euh, situation bi dañu war a xam ne diñ ko war a analyser froidement diñ ko war a analyser froidement parce que am na ci foo xam ne ndox bi bu fa daanwee xëy na rapidement ouvrage yi dinañ en quelques minutes maximum quelques heures ndox mi dina dem mais am na yeneen point yoo xam ne lu ñuy tuddee c'est des points bas point yooyu xëy na également il faut un peu de temps beneen bi également am na ci zone yoo xam ne luy ñu am seen xam màcc ci mbir bi di tuddee des zones non édificantes yi ci wàll boobu liggéey bi xëy na dina gën a jafe mais mun nañu retenir que tey par rapport ak euh, lu fi situation début déclenchement plan Orsec bi vraiment am na ay ay avancées majeures yan zone moo nekk euh, zone yi nga xam te ne euh, ba léegi nii euh, jafe-jafe mi ngi fay am parce que xamoon na ni ay Kër Masaar ak yooyu jafe woon na ndax tey jii mbir yi soppeeku na. no dëgg la jafe-jafe yi surtout dans la banlieue de Dakar mooy fu nga ko waxee Kër Masaar ak également buñ ko fàtt fàtt waruñu ko fàtte am na yeneen gox yu nga xam ne mu ngi nekk à l'intérieur du pays mun naa ci ràññee région de Fatick. localité bu tudd Sokone nga xam ne Sokone deux cent mën nañu xayma plus de ñaar téeméeru millimètres daanu na bés boobu loo xam ne xëy na bu ñu saytuwee ci at yu ci passé pratiquement musu fa am mais à ce tey je crois que foofu euh, xibaar yu ñu fa yu ñu fa jëlee euh, mun nañ nekk que situation mu ngi ñëw donc à la normale mais généralement tey c'est surtout la banlieue de Dakar banlieue de Dakar ak yenn gox yi yu nekk a euh, à l'intérieur du pays. notamment yu nekk yu nekk au niveau la vallée. oui Kër Massar moo ci gën a fës euh, ci li ñuy jot ci xibaar sunu ndaw yi li ñuy baaxee li ñuy gis ci ay images la xew Kër Massar est-ce que ma ngay avancé nit ñaa ngi jël ay xeetu gaal mbaa di defar seen gaalu bopp di traverser di fayeeku euh, mille francs ñi bëgg ñibbi seen kër. ñu jaare leen ci ndox mi ak risques yi ci am yëpp situation Kër Massar ci suba ak tey gii lu mu doon. loolu situation Kër Massar il faut que ñu analyser ko avec objectivité wax naa ko sànq ci wàllu euh, situation bi am na ci zone yoo xam ne euh, zone d'accès difficile la peut-être que mun nañu wax ne comme nu mu ko waxee sànq xëy na du dëkkuwaay mais ci wàll boobu situation bi li muy metti metti yëpp. et ñuy masta askan bi état bi toogul parce que loolu rôlu état la mu aar euh, askan bi ci wàll boobu effectivement action de terrain ñu ngi koy poursuivre te tant que yegguñu ci benn situation bu nga xam ne vraiment mënuñu duñu duñu duñu bu ñu analyser que situation bi jarul ñu yëkkati ñu lever plan Orsec bi duñ ko lever Parce que lu ñu war a retenir il des actions concertées parce que certes ndox maa ngi foofu am na ci yoo xam ne xëy na mënuñu toog seen kër am na ci ñoo xam ne également peut-être que situation bi mun na jël du temps loolu moo tax état jël na yeneen mesures mesure yooyu mooy gérer la situation des personnes impactées ci wàll boobu mun naa leen nekk y des zones de recasement état bi installé na des zone de recasement depuis samedi defe naa ne guddi samedi dimanche am nañ ci ñoo xam ne sax fanaan nañu ci zone de recasement yooyu. fu mu ne zone de recasement yooyu. am na ñu installé am na ñu ñu installé à dans le département de Pikine dans le département de Rufisque am également am na six à sept euh, zone sites de recasement. am na tamit ay infrastructures nga xam ne c'est des infrastructures publiques xool nañu ne foofu également am na disponibilité pour euh, installer fa des personnes impactées suñu mbokk yoo xam ne dañoo loru ci mënd bi mën naa joxe benn exemple au niveau de de l'arène l'arène de lutte foofu également comme nu nga ko waxee sànq am na ay tentes yu ñu prépositionné et tentes yooyu am na yu ci yu ciy ànd pour vraiment Euh, wàññi wàññi difficulté coono yi ci askan bi. Mhm. Ndiogou. waa ci wàllu moyens yi maanaam liggéey beeg yooyu euh, li ngeen mobiliser ngir moto pompe yeeg yooyu ndax lépp yemb na ak euh, ndax mën nañu am xayma ci moyens yi ngeen mobiliser ci plan ORSEC bi. waaw dañu war a fàttali que am na ay effort am na ay effort yu nga xam ne nguur gi def na ko parce que ñun ñëpp gis nañu daaw dinañ insister sur ça ci brigade nationale des sapeurs pompiers jot nañu vraiment matériel te matériel boobu dina contribuer comme ni ñu koy waxee suñu jargon monter puissance su brigade nationale des sapeurs pompiers. jumtuyaay yooyu le commandement wu brigade nationale des sapeurs pompiers tas ci dëkk bi et à partir de ce moment balaa même que taw bi di di wodd balaa même mënd bi di am. moto pomp yi ak yeneen instruments yëpp te yooyu ak lu ñuy àndal lu ñu lu mu àndal yooyu yëpp prépositionné nañu au niveau de toutes les régions et à partir de ce moment bu mu amee donc euh, éléments yi dugg nañ sur le terrain commencé donc euh, def seen liggéey mun nañ nekk euh, moyens yi mu ngi ñëw au fur et à mesure en fonction vraiment demande bi depuis que mënd bi am ministre de l'intérieur dem na au moins trois à quatre fois sur le terrain au niveau de la région de Dakar. dix milliards li président public wax ni moom la ñuy def ci plan Orsec bi ñaataa duggagum. dama bëgg continuer ci dinaa ci dinaa ci ñëw parce que lu ma bëgg wax ni lu am solo la eh, ministre de l'intérieur dem na fa dem na Dakar ñetti yoon dem na région de Thiès benn yoon et je crois que xëy na dina programme dem dans d'autres circonscriptions administratives ci wàllu. Euh, moyens yi nga xam ne euh, état du Sénégal mettre na ko à la disposition du du plan Orsec comme nu nga ko waxee ñu ngi ko évaluer pour le moment à à dix milliards de francs fa mooy fukki fukki milliards te fukki milliards yooyu nu mu tëddee lu yomb la parce que am na ci loo xam ne day dem ci matériel am na ci loo xam ne mooy accompagner liggéey bi beneen bi am na wàll benn pàcc bu am solo nga xam ne président de la république jagleel na ko askan bi nga xam ne c'est le domaine de la protection sociale assistance humanitaire bi nga xam ne ñu ngi ko xayma eh, ñetti ñetti milliards te wàll boobu am na benn élément bu bu am solo parce que ni nit ñi di ci généralement mooy que bu mënd amee wala catastrophe bu amee généralement dañuy état bi buy jàppale askan bi xëy na ay dund day dund dund la ñuy jox euh, askan bi mais ci ren am na benn expérience boo xam ne xëy na nit ñi xamuñu ko mais ñu ngi ko doon def te loolu ministère de la solidarité nationale ministère chargé du développement communautaire nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàll boobu ñooñu ñu ngi koy ñu ngi programme boobu miin nañ ko xam nañ ko mooy lu ñuy woowee cash transfert parce que dinañ xool euh, ci benn mécanisme bu nga xam ne autorité administrative yi ñoo koy coordonné ak yenn opérateurs yi ñu xool nañuy ñuy xayma ñu jël benn benn somme benn somme boo xam ne xëy na diñ koy yónnee donc askan bi nga xam moom moo xam loo xam ne moom la soxla mais nu caagan ne cagante ne assistance humanitaire en matière euh, d'aide alimentaire loolu moom dina continuer incha allah. Mhm. Euh, déglu naa ministre intérieur ci rajo Sénégal muy wax ni am na itam embolom bu ñuy jox gouvernement gouverneur yi ñu gérer ko directement war a toll ci trois milliards sept cent millions loolu ci lu mu jëm. loolu ci wàll loolu la ñuy wooyee euh, territorialisation des des politiques publiques. te loolu également day bokk ci lu ñuy ne déconcentra déconcentration euh, de des des actions de l'État dinaa leen fàttale xëy na dama nekk ci biir euh, système bi am na ay semaines yoo xam ne président de la République signé na benn décret lu ñuy woowee charte de la déconcentration charte de la déconcentration lu mu tëddee mooy mission état dafa am pàcc boo xam ne niveau central la pàcc boo xam ne diñ koy déconcentré te ñu koy déconcentré ñu koy euh, pàcc boobu ñu koy yore mooy autorité administrative yi gouverneur de région préfet de département ak sous-préfet d'arrondissement ak service de l'État déconcentré donc euh, ministre de l'intérieur dafa xalaat nekk comme dañu nekk dans une situation d'urgence te ci wàll boobu chef de circonscription administrative yi ñooy coordonner l'action de l'État au niveau territorial xëy na loolu moo gën ñu jël donc euh, enveloppe yooyu jox leen ko nga xam ne ñoom sur le terrain dinañ mun a mëne donc de manière diligente liggéey boobu. léegi euh, wàllum séddale bi est-ce que euh, xam ngeen nu muy demee njaboot yi ku ñu nekk ñaat la war a jot ak yooyu ak ñaata njaboot la. bëgguma ci sore na ko bis na parce que defe naa ne xëy na ñu ngi ci ñu ngi ci liggéey bi. mais lu ma mun a wax rek ci ci ci wàll boobu mooy que vraiment euh, par rapport ak euh, lu état bi di tàmm di joxe euh, ci wàllu cash transfert boobu am naa yaakaar ne que li ñu leen di jox mooy ëpp lu ñu doon jot jusqu'à présent. li ñu doon jot ci bourse de sécurité familiale vingt cinq mille. non loolu dina ko dina ko ëpp dina ko ëpp je crois bien que vraiment. bëgguma avancer chiffre mais di dina dina ko ëpp. Hmm. incha allah. li ñu jaaxal itam mooy saa yu plan ORSEC amee ngeen jënd ay jumtukaay ay moto pompe ak yeneen jumtukaay euh, bu nawet ñëwaatee plan ORSEC ñëwaat ngeen jëndaat ay moto pompe yi ngeen daan jënd fu ngeen koy def fu mu jaar anamu dañ ko sàkkal pexe am déet. déet bul bul bul bul wax loolu. aw laaj la aw laaj. aw laaj la parce que ci wàll boobu mun naa nekk. Euh, dam la ni jox benn information ci ci utilité plan or Orsec plan Orsec chaque année ñun direction de la protection civile ak euh, service de l'État yi dañuy xayma euh, moyens yi parce que dañu nekk ci ci ci logique prévention ci logique même réduction des risques de catastrophe donc ci wàll boobu comme catastrophe du tàggu lu ci ëpp donc il faut que ñu fagaru fagaru boobu nag il faut que ñu xool nag lan la ñu am te ci wàll boobu macha allah mun nañ ne ñun ci lu ñu concerné ministère de de l'intérieur vraiment mun nañ nekk matériel bu ñu yore te matériel boobu ñu ko yore mooy brigade nationale des sapeurs pompiers ñu ngi koy sàmm di ko aar di ko entretenir moo tax comme nu mu leen ko waxee sànq mbir bi bu muy am boobu fekk na équipe yi unité yi pare nañu woon déjà sur le sur le terrain. mais ci wàllum laaj bi tontu woo ci lan moo waral ba chaque fois bu fekkee ne matériel bi sàmm ngeen ko am na loolu moo tax chaque année ñuy jënd di jënd chaque weer at mu nekk ñu jënd alors que yooyu noonu bu ko dencoon xëy war na mën a mën. ngeen def liggéey bi wax naa ko mais plan ORSEC lu mu signifié expliqué naa la ko. plan ORSEC bi ñu koy actionné bi ñu koy activer day fekk ne moyen yu ñu yore doyul loolu moo tax bu ñuy activé plan ORSEC day day day fekk ne bu moyen yu doyul donc à partir de ce moment il faut que mu am yeneen moyen yeneen ressources yu ñëw euh, tegu ci nga xam ne ñooy permettre xanaa ñu laajaat ko leneen maanaam est-ce que am ngeen intendance wala service boo xam ni mooy saytu matériel bi ngeen am est-ce fu ngeen koy denc ndax yéen a ngi koy denc ndax yéen a ngi koy gisaat. ministère de l'intérieur service bi buy intervenir ci essentiellement ci ci mbënd bi mooy brigade nationale des sapeurs pompiers sapeurs pompiers comme les autres agents de l'État ay militaires lañu ay soldats lañu te ci wàll boobu je crois que war nañu dalal suñu xel te rafet naa njort également que yeneen service de l'État yu nga xam ne dañuy bokk. ci liggéey bi ñoom tamit vraiment euh, dinañ lu ñu war a def dinañ ko def mais liggéey bu nekk day am évaluation kilifa yi wax nañu que mbir bi war nañ ko évaluer parce que ci évaluation bi sax da nga ciy jàng lu ñuy ne retour d'expérience lii bu pare dina am rapport rapport yi ñu ko war a def dinañ ko def te buñ ko defee ba pare dinañ évaluer lu ci baax ak loo xam ne sooxe na ñu war ko jubbanti. Mhm. Kër Massar ak yeneen gox yi ndox ma fa ne jamono ji kañ kañ lay jeex kañ ngeen koy manq bam jeex. wala boobu mënuma ko wax parce que euh, directeur des secours commandant de la brigade nationale des sapeurs pompiers xëy na mën na apporter réponse euh, wal wante comme nu mu ko waxee équipe yi ñu ngi sur le terrain te. li ñu war a def ñu ngi koy def te lenn tam wala nañ ko retenir nawet bi jeexagul comme que nawet bi jeexagul euh, je pense que il serait prématuré teel na ñu wax ñu euh, joxe diir mais dans tous les cas euh, services yi ñu ngi sur le terrain et que vraiment am nañu yaakaar que ndox bi dina dina wàññeeku ba ñoo xam nañu war nañu dellu seen seen kër incha allah dinañ fa dellu. est-ce que am ngeen ay xayma yu bees ak séentu ci taw yu fi doon ba jur lii ndax dana amaatam déet. Euh, maa ngi sant di gërëm euh, ANACIM direction de la météo parce que service de l'État boo xam ne ñoo ñuy dimbali ci ci liggéey bi parce que dina ñuy jox vraiment à temps euh, xabaar yi ci wàllu wàllu donc climat bi ci wàllu taw bi. te ci ci wàll boobu comme niñ ko waxee keroog parce que bu ñuy déclenché plan ORSEC directeur de la météo ñëwoon na ci suñu réunion bu nga xam ne ministre de l' ak naatangoom ministre de l'eau et de l' assainissement ñoo ko ñoo ko présidé euh, joxoon na ay ay ay tegtal et comme nu mu ko waxee euh, semaine boobu gis nañu am na ay jours yoo xam ne taw na même les dix onze et douze septembre bu nga waxoon bu ñu neewoon na dina taw effectivement taw na donte sax melul comme yële taw waaw melul c'est vrai que euh, bëggu bëgguma bëgguma euh, bëgguma peut-être peut-être que wax loo xam ne maîtriser wu ma ko mais je crois que am naa xalaat ne yéen ak xalaat ne que lu fi amoon hmm. ci taw euh, xëy na loolu du fi amaat du du fi amaat mais dans tous les cas xaw ma ban question nga may poser mais nit ñi dañu war a retenir que taw c'est vrai que lii mooy le côté négatif mais eh, mun nañu retenir que tam am na am na am na lu baax surtout ci suñu mbokk yu nekk ci àll bi jërëjëf lay Noba directeur protection civile te ministère intérieur